seen jotaayu kàggu mag ñi am mbégte itam dellusiwaat tey ci borom xam-xam yaakaar naa doon di leen ko présenté ci biir réew ak biti réew di docteur Baye Mass Cissé borom solution la solution ñu koy santaat bu baax a baax adresse bi nag benn la Parcelles Assainies unité 14 en face pharmacie la Parcelle Ouest ñu di ko santaat bu baax ci disponibilité bi docteur Baye Mass ñu ngi lay nuyu beneen yoon di la wax salaamaaleykum. bismillahi min seetaan rajo Muntaxa ñu di la sant di la gërëm rek ci émission bi nga xam ne toujours temps suñ ko defee nit ñi ñu ngi ci gis seen bopp euh, di ci am njëriñ di am satisfaction loolu rek am na solo parce que benn émission bi ngay def tey benn nit jëriñu si rek moo xam mu feebar ci wér ci moo xam mu am ci gàllankoor suñ borom tegg gàllankoor googu loolu sant yàlla la ñu ngi koy sante suñu borom tim euh, di la gërëm yow mi nga xam ne tout ce temps yaa ngi tàllal micro. macha jërëjëf docteur Baye Mass Cissé borom cabinet la solution ñu di ko santaat bu baax mbokku téléspectateurs yi askan wi itam di ko sant waaye itam di béggee lool euh, ci taxawaayam ak liggéeyam bu am solo bi nga xam ni itam da koy teg ci yoon waaye itam sell lool te wóor euh, docteur mu mel ni dañuy ñëw rek moment bi bu ñuy wax mu ñu ngi dugg ci période bi nga xamante rek moo di bi euh, grippe bi parfois day faral di bëri docteur Baye mu nekk li nga xamante ni tàngoor bi dina ñëw chaleur bi dina ñëw waaye nag lu ci bëri bëri ñu ci bëgg rek li ma ci bëgg a wax mooy matuwaay yi nga xam ni askan wi tey yow mi nga xam ne xam nga gàncax di dox ci yëfu mag ñi boobu ba léegi ñu xamee la ko euh, docteur ban ban ban ban lan nga leen mën a baaxee moment bi nga xam ne fi lañ toll nii. waaw alhamdulilah li ñu ñuy jox njëkk wax mooy set nawet moom bu ñëwee nañ fexe barab yi di set mbedd yi set kër yi set euh, dañu wax tamit ne bu fekkee sibbiru moom bu xasee am dal xale bi tamit ñaar yi moom képp ku ko jëfandoo rek suñu borom mën a defal tawféex mooy soo amee ngeer. nga boole kook citron mhm. boole kook mbantamaar yi nga baxal ko mhm. naan ko incha allah lépp luy virus wala luy tàngati yaram rek mhm. mën na ko dindi ci wàllu siburu am na ci solo trop mbokk yi loolu daf ciy baax lool yéwén loolu tam ci xam-xam waaye tam di ko partagé ak askan wi dégg ngeen ni mu ko waxee kon nag muy matuwaay bi nga xam ni ci wàllum cosaan la ku leen xam-xam leen itam dëkk bi ñu cosaanoo itam ca Saalum xam nañu luy gàncax bu baax a baax waaye tamit topp jëfu mag ñi docteur dañuy ñëw nag ci li nga xam ni euh, wàllum maladie yi nga xamante ni maali bëri na waaye mu mel ni da ngaa indi moringa moringa dama koy njëkkee suñuy waxtaan ndax ba ma koy dégg ci yow dégg gu koon ci keneen ci yow laa ko njëkk a déggee muy wàllum moringa moringa bi nga xam ni dafay faj ak ak solo bi mu am tamit di faj askan wi bëggoon naa nga ñëw ñu ci njëriñu moringa waaw alhamdulilah moringa yaakaar naa 2016 ba léegi wala 2015 ñu ngi ci waxtaan man ak yow mhm. ñu dawale fi dawale bi am solo ma ne la moringa nattale woon ne am na ñu ne mën na faj 313 malade man dama ne lu dee rek mën na koo faj parce que moringa nekk na garab boo xam ne garab bu am solo bépp vitamine bu doomu aadama di soxla ci yaramam boo am na ko mhm. parce que moringa am na vitamine C am na na potassium mhm. na fer mu nekk moringa dafa faj ndiglu métti day faj tension mhm. day wàcce suukar euh, day raxas deret day faj prostate day faj rhumatisme day faj nerf mhm. day faj ndiglu métti mhm. ndiglu métti su ñu faj ndiglu métti xas ba mooy faj ndiglu métti doom boobu noonu tim dafay wàcce suukar bu baax te day wàcc tension te antibiotique la moringa nekk loo xamante ni même douleur ragal jigéen bi nga xam ne dafa am douleur ragal mm-hmm. muy métti ragal bu am gisi ragal ragal bi douleur dafay métti trop trop mm-hmm. moringa boobu boo ko jëfandikoo suñu borom mën na la defal tawfeex ba ragal bu fekkee da doon tardé wala da doon métti wala ni muy ñëwee baaxul suñu borom dina defal tawféex ba mu dëñ mhm. yow mi nga xam ne da nga am méttitu biir wala sa biir bi tout ce temps dafay gonfale wala dafay boo lekkee du gaaw a desere mhm. même moringa boobu boo koy jëfandikoo suñu borom mën na laa dimbale mhm. ba soo lekk sa lekk dina gaaw a res yow mi nga xam ne da nga lekk diwlin guddi ragal boo tëddee mën na leen jafe-jafe moo xam da nga am tension wala yoon noonu boo lekkee diwlin jëlal moringa ba pare nga def ko ci tey naan ko incha allah suñu borom dana defal sutura ba diwlin bi dafay wàcc automatiquement lekk bi dafay gaaw a res parce que da gis nit boo xam ne dafa problème mu tension mu lekk diwlin rek tëdd nelaw mhm. mun na ko indil jafe-jafe yu bëri parce que ñi am ABC ak wala ñi xam na dem dans commandement yëpp mhm. problème yëpp moo la génne mhm. mais soo lekkee diwlin guddi daal nga ragal yow boo tëddee mën na indi jafe-jafe defal bu feebar ku feebar war nga mën a jël parce que garab la boo xam ne dafay renforcer lépp lu nekk ci biir yaram man mhm. kooku ku feebar da ko war a jël ku feebar da ko war a jël muy garab bu am solo boo xam ne suñ ko doon waxtaan xajul ci émission bi mais dañ koy tënk comme noonu rek Euh, njariñ bi nga xam ni moo nekk ci moringa dégg ngeen ko ni ma leen ko waxee 2016 ba léegi ba mu ciy wax euh, daanaka ñu ci bare bari tàmbalee guñ ci mu nekk li nga xamante ni tam njariñ yi ci nekk itam leeral na leen ko docteur damay njëkki directement ci bi nga xam ni euh, saa su ma toogee yow da nga ci soññ askan wi waaye tamit di leen ci bàyyi loo xel muy hépatite B hépatite mu nekk li nga xam ni yow maladie yi gën a compliqué da taxaw di ci développé te ba nga ciy développé ca gannaaw la woon yàgg na hépatite waaw yàgg nañ ci wax ma ne yow man na la bañ ci dara def émission ba léegi amul benn nit bu la wax na la diw mii laa jëflante ci wàllu hépatite B mu doon wax te gisuma ci résultat yaakaar naa man na dix ans ñu ci liggéey ma ne la fu ma neex ma waxtaanee ko mhm. te kenn du ma dévier te benn nit du ma wax na ma jox naa la sama xaalis mhm. ma def testé gisuma ci résultat képp koo xam ne maa ngi jëflante yow dama la naan defal ma analyse bi yónnee ma ko mhm. waxal charte virale bi fi mu toll ñu commencé nga xool da gis résultat cent pour cent te buñ ko toppee dafay dem ba virus bi set wecc mhm. parce que man dama gëm li ma mos a wax rek laa mooy dama gëm na bépp feebar bu du wér amul man li ma gëm mooy bépp feebar bu du feebar dee dafay mhm. li ma gëm mooy garabu olof yi lu mu mënta faj amul man mhm. loolu laa mos a gëm te loolu moo nekk parce que ñun suñu maam bi ñu fi nekkee xamuñu dara lu dul garab yi lekk naturel bii dañ doon lekk maanaam jamono yi ngay gis ñu naan la insuffisance rénale ak ay prostate ak ay jabat ak ay tension mhm. lu feebar yi bëri yu ëpp jamono ji lañ ko xam jamono bi nga xam ne lekk bi sensé na dem ba nga xam ne suñu lekk yëpp daanaka engrais la mhm. dem ba nga xam ne lekk yi dafa am chimique mhm. dem ba nga xam ne suñu naan yi yëpp naan yi dafa yëpp naan boo ci a am chimique li ngay lekk ba pare nekkul vitamine normal nekkul lekk boo xam ne dafa naturel parce que mhm. lekk yëpp dafa am engrais mhm. yooyu yëpp nga dajale ko sa biir mhm. mooy waral doo gaaw a desserré seere mooy waral tey nga indil la sa deret dox normal mooy waral mu dem a indil jafe-jafe colopathie wala nga am jafe-jafe prostate wala nga am jafe-jafe hémorroïde wala nga am jafe-jafe et yooyu yëpp tey li li may dénk nit ñi rek mooy nañ dellu cosaan waaw dellu cosaan mooy man garab yi nga xam ne ñi koy jëfandikoo amul lenn lu muy def nit lu du faj ko parce que mënoo jël garab bi nga xam ne nga liggéey sa garab ci moringa wala jinjar wala daqaar wala bisaab wala wala wala wala laaj léegi ñu ne la loolu daf lay indi insuffisance rénale est-ce loolu xel nangu na ko ndax laaj dafa indi insuffisance rénale ndax jinjar daf ko indi ndax moringa daf ko indi ndax mbër buuf daf koy indi parce que loolu yëpp dañ koy togg di ko lekk te deful la dara ñu ne yow boo ko naanee mënu laa faj daf lay indi insuffisance rénale loolu waxu caaxaan rek ma àll bi tubaab bi ñoom ñoo ëpp feebar boobu fépp te am naa garab olof lan moo leen ko def mm-hmm. bon nañ delluwaat ci li ñuy naan ak ci li ñuy lekk ba xam lan moo indi problème boobu macha allah mbokk yaakaar naa nañ delluwaat ci li ñuy lekk ak li ñuy naan euh, lu jar a bàyyi xel saa su ne da ngay dégg tam mu ci euh, soññoot askan wi di leen ci bàyyiloo xel docteur Baye Mass Cissé borom cabinet la solution di ko santaat bu baax adresse bi Parcelles Assainies unité 14 en face pharmacie la Parcelle Oise di leen santaat bu baax a baax numéro téléphone bi yéen ñi ko bëgg a woo rek numéro baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 900 euh, maanaam 9 00 74 80 wala beneen bi 70 716 38 04 docteur mu mel ne dañuy ñëwaat ci. ci euh, bi nga xam ne itam euh, léeg-léeg ñu ci waxtaan mu nekk li nga xamante moo di néew kàttan euh, da ngay gis éjaculation bi nga xamante ni day day day faral di nekk ci góor ñi érection mu nekk li nga xamante ni ay mbir la gaaw àgg fa nga jëm ka nga xam ne yëgatul dara te ki nga xam ne maanaam mbir mi moo surtout ñu may waxal mooy ñi nga xam da leen a dab docteur lan moo waral loolu gaaw yëg sa bopp teel a àgg fa nga jëm. waaw alhamdulilah xam nga li waral kom li ma la ci ëpp lekk la. Mm-hmm. loolu moom problème boobu li ko indi rek mooy mën nañ la mën nañ la résumer boo amee jabet bi normalement force nga am ko soo amee tension force nga am soo amee hémorroïde force nga am ko soo amee calopathie colopatite nga ko am mhm. soo amee ndoxu siti mën nga ko am mhm. soo amee tension bi mën nga ko am su fekkee da nga am stress mu nga am mii ma lay tudd nii yëpp boo ko amee jafe-jafe boobu force nga am ko mhm. léegi nag jafe-jafe boobu noonu nga xam ne am nga yii nii yëpp ngay fexe faj ko soo ko fajee rek ñu am doo am problème parce que bu la ci kenn na doomu aadama ñaari rek mu am problème bu deretam normal biiram normal du am jafe-jafe mhm. muy lekk muy dessert normal deretam di dox normal du am ba mhm. jafe-jafe mhm. léegi nag maladie yi nii ma wax la soo ko amee mooy dem ba mu yàgg érection bi dafay lase wu jógee dafa gaaw wàcc pour nga isaalike isaakale te boo fajee loolu day dëñ ba set wecc parce que feebaru tële ak feebaru éjaculation bokkuñ mooy nit bi nga xamante nii dafa judduwaale li ñuy wax yoom nga xam ne kooku du góor ak yi nga xam ne dafa dem ba mu yàgg fanam érection doxatul normal wala bu demee dafay gaaw a lase te bu lasee du moo pour nga jógaat problème la loolu li ko waral mooy feebaru jàngoro la bu nekk ci biir yaramam bi boo xam ci biir bi la wala ci deret bi la wala léegi nag loolu su fexee ba xam lan la faj ko ko rek incha allah day tàggoo moom ci kàttan subhana ñun nag bu mu ci mën a doon rek boo jokkoo ñun incha allah danañ la orienté ma mbokk yi loolu dégg ngeen ko new kattan mu nekk li nga xam ne yàgg na di ko traité docteur Baye Mar Cissé eh, éjaculation précoce bi dégg ngeen ko érection dégg ngeen tam ni mu ci indee ay jotaay yu am am solo docteur mu mel ni damay ñëw euh, ci wàllu pomat bi pomat bi nekk na li nga xam ne moom ku ko ñam xam ne pomat bi euh, saa suñu la fekkee mu ngi sa wet da ne man sama bopp daanaka kalaa euh, laax jaay laax lekk ba noppi mu nekk li nga xam ne tamit ñu nit lu ñu xam la ci wàllum pomade bi nga xam ne miracle la euh, docteur pomade bi dëgg dëgg dëgg euh, sincèrement mënu ci liggéey lu day lool lu wér askan wi la mais njariñ bi ak secret bi ci ne. waaw alhamdulilah ni muy tuuti nii boo ko gisee maanaam njëriñ la boo xam ne képp ku ko xam. képp ku xam pomade bi li muy jëriñ foo mën a nekk di ko am mm-hmm. parce que képp ku ko xam doo tàggoog moom yaakaar naa man ba ma ko daree defar ba léegi musuma tàggoog moom te yaakaar naa yow xam nga ci dara kurut yow tim xam na ci dara parce que képp ku ma ko mos a jox rek am nga ci résultat pommade la boo xam ne néciate da koy faj day faj arthrose day faj rhumatisme day dindi heure day dindi picc day dindi xam day dindi góom mm-hmm. bépp fatiguement général bu nekk sa yaram nga xam ne boo tëddee sa yaram dafay diis dafay métti mm-hmm. da ngay tayal sa yaram day diis fara farade bii da koy faj muy mm-hmm. farade la boo xam ne médicament la boo xam ne lu mu mënta faj amul faral boo xam ne képp ku ma ko mos a jox xam na ko mhm. yaakaar naa yàgg nañu moom ah, kuñ ko mos a jox amoo ci résultat mën ngaa wax parce que bii moom mhm. nekk na loo xam ne parce que ñun yàlla daf ñu dimbale nag lépp lu ñuy liggéey dañ koy mhm. testé ba mu wér ñu da la métier la la parce que képp ku yaakaar naa jërëjëfati pomade bi yaakaar naa ni ma ko waxee ku ko xam-xam ne lii mooy pomade miracle pomade miracle a ngi nii Euh, daanaka ko xool njariñ yi fatiguement général nerf sciatique dégg ngeen ko ak arthrose ak bari na yi nga xamante ni daanaka boo ko ñemee rek daal di xam jarul sax moom moom publicité na boppam docteur damay ñëw ci ñi nga xam dañoo am euh, ndoxum siti mais parfois da gis ñi nga xam ne parfois dañu naan euh, saasu ne sama yaram bi day dem ba daanaka génn ay heure daanaka heure yooyu day dem ba indi ay taas ci yaram bi maanaam di xasan mu mel ni parfois am na ay genre savon yi nga xam ne xëy na peut-être ay produit la yi nga xamante ni war na leen a mën a euh, maanaam dékku ba nga xamante ni genre xasan-xasan boobu picc-picc yooyu nga xam ne ñoo ngi toj daanaka ñu mën ci gis euh, njariñ ba nga xamante dina mën a disparaître waaw alhamdulilah xam nga tey yàlla daf ñu dimbali ñun suñ malade suñ feebar lépp suñu li ñuy faj lépp complètement la parce que boo xoolee saabu bii nii foo saabu bii nii boo ko xoolee mm-hmm. ak forade bii ak garab bi ñu lay jox nga naan ko mm-hmm. mooy liy complété ki nga xam ne dafa am ndoxum siti mi nga xamante nii dafa am picc bi wala moom heure bi mhm. wala muy xesan wala muy taas wala mu dem ba koori tilim parce que ñun ndoxu siti nu mu la mën a ñëwee rek mun nañ la ko fajee ndoxu siti nag dafa bëri nu muy manifester si doomu mhm. am ñoo xam ne day def heure mhm. am ñoo xam ne day ruusal seen kawar gi am na ñoo xam ne day te wàcc kurobët te xonqal seen bët yi xesan muy métti mhm. ñoo xam seen diggante baaraam yi mooy tooy toujours temps mhm. ñoo xam seen tànk yi dafay tànk bañ koy bomb ci malla bi mhm. am na ñoo xamante ni xam seen diggante awra yi dafay ba am xet naanee garabu ndox ci ti léppay picc yi daalte ko ba ñu jaaxle tiit jàpp ne garab bi ñu naan moo indi jafe-jafe parce que ndoxu moom benn nga saw ko wala picc yi génn parce que liquide la boo xam ne dafay jaxasoo deret bi ak ak kii bi di sukki di circuler mhm. léegi liquide boobu noonu fu mu tàng bu tàngaay bi fu mu wàcc fu ngi am xam dafa nooy dafay toj mhm. soo ko tojee lu mel ni liquide bu weex wala ndox moo fay génn mhm. wala nga koy wokk muy neex lool léegi nag ñun dañ lay defal traitement complet bi nga xam ne su fekkee picc bi dafa génn mhm. wala dafa am heure wala dafa am góom soo boolee garab bi ngay naan ak saabu bi ak diw bi léppay dëñ même bu amoon góom góom bi dafay wér ba taas bi dafay gën doo am doom benn cicatrice ñoo tax ndoxu siti ak nu mu mën a mel rek ak mhm. nu mu mën a garaaw garaaw boo ñëwee ñu faj la cicatrice borom tabarkalla docteur su ma jugee ci ndoxum siti hémorroïde tam moom moom it dafa amaat beneen traitement boo xam ne si à part waaw hémorroïde am na traitement am à am na am na pot boo xamante nii mhm. ku fekkee xam nga imur dafa am ñaar dafa am interne ak externe dafa am koo xam ne dafa am colopathie mu xaw a niru hémorroïde te du hémorroïde mm-hmm. am koo xam ne hémorroïde la yor parce que bi da ngay gis ne dafay def ballonnement mm-hmm. sa biir day mburi mm-hmm. doo mën a téye njàpp lu bëri da seere am ñoo xam dafa am picc ci suuf picc bi dafay métti tellement su la jàppee doo toog doo taxaw léegi nag ñun su fekkee daf la dal dañ la koy faj ci biir ak ci biti mhm. man damay wax ne picc bi jarul dagg parce que fi mu nekk boo ko daggee dafay tooy toujours te góom bi a affecté te ñun am nañ saafara boo xam ne garab bi ñu lay jox nga koy naan mhm. moom mooy rey jàngoro bi nekk ci biir mhm. diw bi ñu lay jox nga koy diw moom mooy seel picc bi si biti après fekk jàngoro bi dee na ci biti ci biir nga tàggoog moom parce que ñun ñaari côté lañ koy faj parce que boo fajee picc bi te fajoo fi sasu sasu jàngoro bi ba tey jàngoro du saa soo sonnee mu ñëwaat léegi nag ñun la ñuy def mooy ñaari traitement lañ la defar mm-hmm. mooy garab bi ngay naan nga xam ne moo rey lépp luy malade bi si biir mm-hmm. ak diw bi ñu lay jox nga xam ne boo koy diw ci picc bi incha allah rabbi dafay seey ba jeex macha allah yaakaar naa benn question rek moo ñu desee ndax daanaka sa jot bariwul ñu ñëw ci drépano drépanocytose bi nga xam ni drépano bi nga xamante ni muy malade bi nga xam ni daanaka dafa raar nit ñi di ci wax waaye mu nekk jàngoro bu metti bu compliqué di feebaru dret docteur ñu déggee itam am na yi nga xam yaa ngi ciy dimbali boobu ba léegi pendant des années yaa ngi jëflante ak parce que heure bi moo gàtt moo tax duñ mën a tënk lépp waaye képp ku seetaan émission bi bépp malade boo xam ne tudduñ ko. te mu nekk ci yow mu jaaxal la boo ñu contacter rek incha allah ñun danañ ci orienté dimbale parce que maladie yi bëri nañ darapo na dafa am SS am AS bu dee SS bi la traitement bi dafay diire 6 mois su dee AS bi la 30 jours la yor wala 35 jours nga tàggoog moom SS bi nag des fois mu jàpp nit ki ba nit ki di maanaam di kiris mm. ñu jàpp ne dafa am rab bu ko jàpp fekk du noonu parce que deret bi dafay way ba tànk bi deret bi dafay way ba nga xam ne dootu circuler mooy waral muy crampo ba nga xam ne tànk bi dafay dem du bokk ci moom wala mm. yaram du bokk ci moom mooy waral xale bi di kiris xale yi bëri toll ci jàng école dafay dem ba yàq seen jàng mm-hmm. moo tax loolu kum ci mën a dal moo xam drépano SS la mm. wala AS la wala goitur la wala asmati asma la wala sinusite hmm. képp kum ci dal incha allah boo ñëwee ci cabine bi ñun dañ la dimbale faj la ko ba nga wér ah. su fekkee tension la wala hypertension la wala su sugar dafay yëg hmm. wala nga am débit prostate hmm. moo xam prostate buy tijjeeku bi la wala bu tëju mu nga xam ne saw bi doo ko mën a téye wala bi nga xam ne saw bi dafay tëju moo ne dem ba lay sonde moom ci mën a doon incha allah rabbi boo ñëwee fii dañ la dimbale moo xam jigéen bi nga xamante ni regalam dafay métti buy ñëw jigéen bi nga xam ne regalam dafay tardé jigéen bi nga xam ne regalam dafay dagg jigéen bi am méttitu biir yooyu yëpp jigéen bi nga xam ne du yëg bànneexu sëy yooyu yëpp benn jigéen képp kum ci dara mm-hmm. incha boo jokkoo ñun mm-hmm. incha allah la orienté dimbali liñ fi nekkee mooy dimbali jaamu yàlla yi mm-hmm. parce que damay wax ne gis nga médecine traditionnelle médecine noble la la boo xamante ni dafay faj muy wér képp ku ko xam ba pare xam garab yi ñuy liggéey doo ko fooyee doo ko caaxaanee parce que boo génnee ci àdduna bi nga xam ne médecine traditionnelle dafa développé si àdduna bi mhm. parce que dañ ko orienté defar ko modernisé ko liggéey ko ba nit ñëpp di ci jëriñu parce que am na fu ne tey foo dem ci bitim réew da nga fa fekk bitig boo xam ne garab yi lay tey mhm. lay defar lañ fay jaayee te li ëpp Afrique fii lay jógee loolu tax ñun ñi nga xam ne ñu am moyen bi mën koo defaree fii te ñun ñi fi nekk mënuñ ci jëriñu ñun nag dañoo tàll suñu loxo ñëpp te képp koo xam ne yaa ngi ci te mënoo ko demal jàngi ko képp koo xam ne yaa ngi fii te mënoo ko demal képp koo xam ne dal na la foo man a nekk mhm. soo ñu contacté ñu incha allah danañ la orienté dimbali la incha allah rabbi jërëjëf docteur sant nañ la gërëm nañ la tabarkàlla ci liggéey bu am solo bi mbokku téléspectateurs yi ki mooy docteur Baye Mass Cissé borom cabinet la solution pendant des années euh, yaakaar naa ni pañ ba ñu dalee di ànd itam euh, yaakaar naa présent li ñu lool ñu di ko santaat bu baax a baax a baax di leen fàttali itam adresse bi boo leen ba ci Parcelles Assainies unité 14 en face euh, pharmacie la parcelle parcelloise daanaka yéen a ngi ci diwaanam di leen fàttali numéro téléphone yi yéen ñi ko yittewoo rek mën ngeen ko daal di woo ci 77 900 maanaam 9 00 74 80 am na whatsapp waaye itam am wala beneen bi 70 716 38 04 mbokku téléspectateurs yi di ko santaat di ngeen allahu buur subhanahu wa taala doole guddal fanam doole ko defal tawféex ak taysir ak najaaxa defal ko saxat doare ni ki barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yàgg loolu di jëflanteeg askan wi waaye itam saa bi di ko ci defal ndam muy di ndaw bi nga xam ni ba mu ci tàmbalee gëstu itam yàgg na fonk lool cosaanu xam-xamu mag ñi tabarkàlla mbokku téléspectateurs yi seen jotaayu kàggu la ak seen mbokku taalibi ku